pourquoi c'est spécial. rek man néewuma kii def na wala kii defut bu dee ci arrivé président bi. dama dégg ni amul pièce justificative. bu waneen ci 86 millions yi. moo ko wax waaw du ma rek. waaw dama ne dama ne la. étudiants yi ñu joxoon amical yi ñu joxoon xaalis bi. ñu may dégg télé laay wax damay dellu ku ñu woon dañuy kii tout le monde a signé wane ni jot naa xaalis bi. Birima gënoon légitime OFNAC nag pour wax ni amul pièce justificative OFNAC la ñu gën a gëm sa wax ça n'engage que toi c'est ton problème ma sama lay wax que OFNAC nga gëman gëwuma OFNAC faut arrêter yow tamit dama tu es Sénégal sa kaddu val sa kaddu jarul kaddu OFNAC c'est ton problème c'est ton point de vue je parle pas pour te convaincre moo la gën a crédible nag je parle pas pour te convaincre waxi partisan nga wax OFNAC <laughs> état bi la fi nekkal je parle li ma gëm lay wax ñoo mm. gëm nga Nafi Ngom Keïta man gëw ma Nafi Ngom Keïta man jàpp naa ne Nafi Ngom Keïta moo rey OFNAC da ko politiser il avait des ambitions des ambitions politiques oui Nafi Ngom Keïta a des ambitions politiques pour dë loolu dafa amoon que il était pressenti pour être candidat en 2019 man naa ko wax c'est moi qui le dis ici à Jakaarlo. nekk nekkoon ci dëkk bi. waaw dama ni c'est ton problème man xam naa li may wax. donc yow li nga gëm ngay wax munoo fexe ba institution bu nekkee ci réew mi. Bouba Ndour wax li mu xalaat li mu ci gëm kenn mu ko tere c'est moo wax li ma xalaat kenn wax li ma xalaat maintenant bu su si transfert na lii la nag loolu lay nekk man sama xalaat laay wax nga wax sa xalaat sa xalaat waxi Ndofane Ngom Keïta juddu ndax du justice dafa wax rek teg. ki atte mooy yoon waxam judduwul sa wax judduwul sa wax judduwul benn waxam juddu ci réew mi mooy attekaay yi. ñooy atte loolu c'est pas mon problème waaw mais attekaay yi nag. mais attekaay yi attekaay yi bu fekkee bu fekkee ni moom hmm. wax na ci dossier bi. la ngeen bëgg ci. Hmm. kon da nga naan soit procureur bi moom day taxaw ni gëwuma procureur bi ma nangul ko ko ma nangul ko ko hmm. mais le procureur àdduna ci. waaw ma le procureur moo njëkk dossier dafa dossier bi c'est mal fait baaxul dama koy delloo of na loolu man ko procureur de la République du Sénégal moo wax wax wax grief yi ci nekk di tax baaxul wax wax ne sur la base de ce dossier yoon mayu ko topp ci waa ci kenn da koy delloo of naag li may xëy Sénégal ak may déglu bët ak bët c'est devant tous les Sénégalais que la ko procureur maintenant ñaar mën na nekk naa ko nangul moom mu gëm procureur wala mu bañ a procureur mais le procureur mu ne dossier bi baaxul da ah, koy ñu nekkoon mooy. non que procureur wax na ma rectifié waaw li nga wax ma yokk ci mën na autoriser waxuñu loolu loolu du débat bi. que ni conseil d'administration mën na autoriser directeur mais dañu ne dépense yi la ñu def waaye yaa xayti xanaa war ñoo mën a wax ni nangam lañ jox charme ci li nga xam ne moom lañu conseil d'administration autorisé loolu la ñu ne xaalis bi. amul dara lu justifié fu ñu ko dugal. kon li procureur wax gëm gëmu ko. non mais dama ne. dama la question président la ci cadre président xam nga cadre président. xam nga président man procureur président atewul. non cadre président président atewul déglu président c'est bon procureur laa gën dama la de Sénégal wax. nangu naan ko de bu la neexee mu doy la. yow boo nangoo bu ñu dépensé sa xaalis bañ laa justifié dara waaw dama ni amul si dama ni. de la moo fi nekk di atte nangul naa ko bañ ko doy procureur de moo ni taxaw ne je parle devant les Sénégalais et je l'explique demain moo ni dossier bi moo ni dossier bi baaxul. procureur du àtte mënu jël toog nag. waaw procureur du àtte juum nga. ah kon procureur du àtte de. procureur du àtte. yaa ne procureur mooy àtte. procureur du àtte yaa ne procureur mooy àtte. procureur du àtte procureur du àtte. Bouba c'est l'exploitation qu'il faut faire de ces rapports là xaar nañ ko mujj na yegg si Bouba à toi la parole.